وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسن وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم امين mbokk jullit am na jàmm soppe si yàlla assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu gannaaw bu ñu sant yàlla doole sant yàlla bu baax di sante yalla mi ñu may katan may ñu fekke bentel suwati do di fajar di walhamdulillah rabbil alamin alhamdulillahi daiman abada Alhamdulillah kaseeran Alhamdulillah ala kulli halin. bon ñu ngi sante yalla sante bu amul aba amul di julli ci yonent nabi sallallahu alaihi wasallam sallam ak wa kiram ak mi ak kep ko xam yaa ngi topp sunna bi yawmal qiyamah wa di yalla subhanahu wa taala yalla ñu yàlla boole si yalla xee jaama indo ko fanano ko yalla mi jaamal yàlla yalla bal jaama yokka ñu sutura yokka ñu kàttan yokka ñu wer kep ku febar nek ci lopitaan mi kër mi safara yalla yalla fuga sa ko yalla yalla delu sa sa yalla yàlla ñu wér waan aafiya yàlla ñu yàlla may aafiya yàlla ñu yàlla may aafiya yàlla ñu yàlla may aafiya julliti juri yàlla yërëm leen yàlla dëkkal leen jannatu fi daws yàlla yaatal seen baamel yàlla def seen baamel mu nekk rawdatu min riyaadil janna yàlla dëkkal leen jannatu fi daws ma allazi anama allahu alayhim min annabiyina wa siddiqina wa shuhada wa saalihin suna ulaika rafiqa moo ko julli ñëwaat fii si daaray muhammad sallallahu alayhi wa sallam di jàngalekat ma boobu moo ko julli xadiis abi musa al ashari radiallahu taala anhu saxaabi jalil bi mu ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam yaa rasulallah islaamu afdal maanaam kan la ñoo a ràññee wala kan la ñoo a xam ne kii moo am diine bu wér wala diine bu baax bi ñu ne kii julit la kii julit dëgga la kan mooy julit dëgga dëgga wala kan mooy xàkkan yonent bi aleyhi salaatu salaam leeral nag indi ko ay baat yu gaata ay kalimaat yu gaata ay baat yu gaata yoo xam ne rek nekku ne di yonent bi aleyhi salaatu salaam dafa commencé di ko wax ne julit nangam nangam nangam nangam nangam nangam nangam nangam déedéet daf ko indi ñaari baat waaw daf ko indi ñaari baat mu ne muslim diga diga diga diga diga mu ne ko man salima al min lisaanihi wa yadihi allahu akbar man salima muslimuuna min lisaanihi wa yadihi mu ne julit diga diga diga diga mooy kan mooy julit bi nga xam ne juliti nañ si làmmiñam ak loxoom ñaar yi làmmiñ ak loxo ndikite du juli ndekete du oor rek ndekete du saraxe rek ndekete du dem maaka rek ndekete du joxe zakat rek ndekete du dem jihaad rek ndekete ah, limal limal jëf yu baax yi yonent bi salaa baat rek la ko tontu man salima muslimuna min lisaanihi wa yadihi allahu akbar ñaari am solo ngi nii laamiñ waay waay ay ak lim si àdduna bi loxo ak li mu yaxasi àdduna bi ñëpp gis nañ gisandoo nañ ko àdduna bi li yaaxu yëpp laa loxo moo ko yaaxa waaye nag julli digga digga mooy julli bi nga xam ne nit ñi mucc nañ si sa làmmiñ doo wax ju ñaaw doo jow doo yaaxa nit ñi doo saaga maanaam lépp loo xam ne làmmiñam ko def te luy bon rek jullit waru koo def soo fekkee ne bugg nga yi nga xam ne bokk nga si bugg a bokk si jullit yi génn sa làmmiñ war nga koo mun a téye ba lu mooy wax rek na nekk lu baax waaye sa loxo alali jaambur bul lor sa jaam eh, doomi si sa loxo alali askan bi bu ko jël sa loxo maanaam loxo subhanallah bon xadis bi yonent bi bi ñu ko woon ay amal islam azam ajra wa ala martaba waaw parce que fee waaye tamit martabaam lu kawe حديث بي كلما غفل قلبك اندمج نفسك في الحياة الدنيا فخرج إلى القبور وتفكر موكي جلدي جسنا لوتا سايبوسا سهل نيكي سمبي آدونا رك آدونا آدونا آدونا رك واو نكالاي أميلي Nakalai sampai ait kir nakalai li aduna aduna rek li ngay daw gudi ak bëccëg yep pour aduna aduna Ken duma uppale nangam ken duma genle nangam ken duma gën ni ni nii allahira ñu ne bo demee sa hel lu mo lam lu mo daj yep sa hel waxtu bu nek lu mo daj rek moy mbiri aduna mbiri aduna ñu ne la jogal jogal nga jublu fan demal sa baamel ya demal nga dem ziyaara ji ya. nga seet ñi fa tëdd ñooy ñan wa tafakkar haulaay al qawm alladina kaanu bil ams mislak ala al ard nga seet ñii nga xam ne ñoo tëdd fii ñii de ni yoo lañ meloon démba de fi ngay dem tey foofu lañ doon dem démba li ngay def tey loolu lañ doon def démba li ngay lekka tey moom lañ doon lekka demba li ngay wax tey moom lañ doon wax démba ana ñu tey nga commencé nag njàngat bu rëy a ngi nii si islaam dañ sib ñuy waare si baamel parce que waruñ faa waare waru ñoo waare si biir baamel ndik baamel rek doy na waar baamel yi rek doy na waar foofu waar war foofu waar em jaru ñuy waare si biir baamel mooy ne ñi ngay ñi nga tiim ñooñu wala ki ngay ki ngeen ay rob noonu ki ngeen suul noonu liñ doon def yow li ngay def rek moom moom loolu daan def anamu tey mu kaanu yakuluun wa yashrabuun dañ doon lekk di naan wa yatamatta'uun dañ doon naflaayu di enjoy waaw di noos wal aan ayna zahabu léegi nag ana nga xool waaw ñii ne bon bàyyi nañ àdduna ak si biiram yëpp bàyyi nañ ko fi luñ doon xiiroo ak ñaayoo yëpp si àdduna bàyyi nañ ko fi liñ doon xëccoo ak liñ doon saagante di réyante pour àdduna yëpp bàyyi nañ ko fi fan lañ barzak fan lañ dem barzak du Barcelona de barzak ana alel ba ana liñ doxi ana jabar ya ana doom ya ana la ana ana ana ana zahabu bàyyi nañ ko fi lan moo fa des ñoom lan moo lay wéetal wéetal ak ñoom foofu amaaluhum seen jëf ya seen jëf amaaluhum amul dara lu lu amoon a jëriñ foofu xanaa li nga xam ne jiital nañ ko loo tax bu ñu yàlla mayee ñu dunda nekk si kaw suuf mbokki jullit yi leen liggéeyal pour ëllëg nañ leen liggéeyal pour ëllëg ndik hadis bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ne julli digga digga digga digga mooy ki jullit nga xam ne doomi aadama yi mucc nañ si laamiñam ak loxoom bon nag yow nga xam ne àdduna rek nga gis àdduna rek nga enu àdduna rek nga toppa léegi-léegi toogalaat bi dal nga ne xaaral ma dem ziyaara ji bàmmeel ndég am nga mbokka bu fa nekk de waajur la wala mbokka la wala ku la jegeñ nga dem ziyaara ji nga xool yow sa activité si nga nekka tey ñiisi si lañ nekkoon lu tax borom xam fa in xamalta janazatan ila al quburi faalam bi annaka baadaha mahmula waaw yow soo demee ba xool ñooñu na nga xam ne ñoom ganaaw ñoom yow la ñoom fi mu nekk nii lañ nekk ñu fa fi mu nekk nii yow yaa des war a fekki parce que ñoom mënatuñoo ñëw te duñ ñëwati mukk waaye ku nekk si ñoom ndeysaan mu nga ñaan yàlla su ko yàlla mënoon a delloo àdduna mu sujudal yàlla benn yoon rek wallahi ñu def ko bon nañ leen sama suñ làmmiñ nañ leen téye suñ loxo buñ jël loo xam ne du suñ jël loo xam ne waruñ koo jël te yëpp kere yomal xiyaama nañ ko layoo suñ borom laameñ bi al yawma naxtimu ala afwaahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bimaa kaanu yaksibuun bés boobu dina ñëw de bés bi nga xam ne yàlla mu ne damay tëj seen laameñ mi nga xam ne moom ngi nay waxee loxo yi di wax maa jëloon lii tànk bi damaa demoon fii na ñëw bon hadis bi eh, ñu ñaan yàlla subhanahu wa taala yàlla suñ bi di tooy si zikrillah yàlla suñ laamiñ bi di tooy si fàttaliku yàlla yàlla suñ laamiñ di tooy si istixfaar yàlla suñ laamiñ bi di tooy si tasbih yàlla si suñ laamiñ di tooy si alhamdulillah yàlla suñ laamiñ di tooy si la hawla wala quwwata illa billah yàlla suñ laamiñ di tooy si wax lu baax yàlla suñ laamiñ di wax tooy pour jubale wala jokkale lu baax waaye suñ loxo yi tamit luñ see wax rek luñ see jël rek yàlla nekk lu lew luñ see jël rek yàlla nekk lu dagan lépp loo xamné ne daganut lépp lu haram la yàlla buñ ko yàlla jox ci suñ loxoy yàlla buñ ko jël ci suñ loxoy ya rahman ya rahim wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallim wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin amin amin ya rabbil alamin